fii ci diwaanu Ngor askan wi ñu ngay àddu ba tey ci autopsie bi ñu def ci néewuk Adja Diallo xale bu jigéen bi mu ngi ñàkk bakkanam ci ay jàmmarlo yu amoon diggante takk der yi ak ndaw ñu doon fippu ngir ñu bañ fa samp ab caserne de gendarmerie waa jii di bu turam gëmul ba tey résultat yi bàyyeekoo ci bile autopsie. tout d'abord maa ngi nuyu peuple sénégalais euh, di di sàkku di ñaan aussi jàmm avant tout dañuy ñaan jàmm am ci Sénégal. parce que Sénégal bi ñu bokk du je dirais pas du Macky Sall du côté de l'État du Ousmane Sonko du du beneen acteur politique ñooñ ñoom moom Sénégal Sénégal avant tout on parle de 17 millions 17 millions yëpp a ko bokk donc nañ xoolaat suñu valeurs yi xoolaat suñu culture démb dellu si waat si euh, maam yi liñ fi sampoon et tout ñu toog waxtaan ñu retrouver ñun suñu paix parce que on peut pas avoir la paix buñ toogul waxtaan dañoo war a toog waxtaan ñu trouver ay accord pour jàmm mën mën a mën a dellu si Sénégal loolu rek la ñuy sàkku. Euh, di jaale population Ngor bépp di wax suñu doom ji suñu jarbaar bi fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge et di ko wax ak di masawu waa Ngor gépp yàqu-yàqu yi kenn mënul wax nu mu toll di masawu population lébu bépp di masawu ñi nga xam ne de loin. tout tout ngorwaay yi nekk diaspora ñu ngi leen di wax ne ñu ngi massaw waaw lii ñun li am ni ñun ñoo ko jëkk a ñun ñun si lii la doon dox parce que lépp loo gis daa am la mu tàmmalee parce que mbir mi li mu tàmmalee moo la euh, gendarmerie dafa waxoon ah suñu ay kilifa mais li mu leen waxoon moom loogu loogu loolu moom yow li mu waxoon loogu la deful loolu moo changé donne bi et xale yi boo gisee ñuy sànnee xat di def loolu saawaay nit ki doo taxaw ak sa kilifa sa imam sa chef de village ak sa maire ñu di ko gazé ngay taxaw di def mais courage loolu amul fet si àdduna loolu bu amul woon di ngeen gis ni yëpp du am mal agir mal intervention te yow nga ne nit ki yow yaa yor sécurité nga di ko bombardé boo duggoon si dëkk bi da ngay jommi da ngay waaru ay dégâts yoo xam ne kenn mënu ko expliquer di tiire si population bi ay balle réelle nga bonkodiser ab dëkk ñun dañuy liggéey boobu ba léegi mënuñu liggéey parce que ki clients yi dañuy ñëw restauration la ñu def Ngor pes moo fi am ak restauration suñu activité yëpp yàqu na la moo tax ñii war a jël seen responsabilité jëluñu seen responsabilité nan la population di soxlawee gendarmerie di xëccoo population bi nga xam ne moom moom war a sécurité am te moo wax la gendarmerie ak Ngor du histoire bu bu dafa yàgg Ngor ça fait 17 ans mu ngi jël centre culturel bi jox ko gendarmerie xaaj waxuma la xaaj mais jox ko jox da ko jox li ëpp jël un tiers bi ça veut dire ñun bibliothèque rek lañ fa am lépp lu waroon salle animation war a ay soirée yooyu xale ngor defatuñu ko bu ñu amee yooyu ay mariage sax yooyu fii lañ koy defee fii si garage ngor bi la ñuy làng rek def seen pare woo def seen li ñuy def waaye ñooñu nga xam ne ñooñu kenn gën leen bëgg sécurité ñu xëy un bon jour ne maire ñoom dañuy dellu wakaam maire ne lan la mu ne ndox waaye ñoom li ñu def foire mën nañu ko def fii ah ñoom doole bi ñu am chantier fu am ndox ñii dëkk fii yëpp gendarmerie moo la ëpp doole foofu ñuy tabax récemment kenn du si am ndox gendarmerie bi fi ñu ko def saison culturelle bi moom lañ jëkk def bâtiment foofu moox maire bi ñoo nekk en face suñu maire di taaj ba c'est pas l'appel fii nga jàkkaarloo ni en face fa lañ yor andi suñu état civil maire bi localiser affaire yu bëri parce que suñu lii moox maire bi ñoo àndoon mais état civil bi lañ ci que moom moo nekkoon si suuf day jël ndox bu baax loolu yëpp bu amee loolu yëpp bu amee kan moo war a àtte mooy président de la république mais ni mu àttee noonu la population bi d'accord parce que ngor boo ñëwee naan jox naa la fii jox naa la fi jox naa la fii xaaj naa parking bi te nga fàtte ne ngor ngor le premier fesman 66 xam la joxe fii joxe kalaawo joxe hôtel nga ñëwaat conférence islamique mu joxe méridien président aéroport bi tey guerre 1943 42 mu joxe ko moo yoof ax wakaam mooy kooku joxe na lépp bâtiment yi nga xam ne yow moom la ñu waxoon ne dañ fa war a def ay sapeur pompier ay gendarmerie ay lii que lala lépp tey boo demee tey ay autorité ñoo ñoom ñoo fa dëkk si temps wadd si temps kii def nañ fa ay jàkk ba dëkk fa nga nga yow peuple boobu nga xam ne ñoom mille huit cent mille astafurlah mille quatre cent quatre vingt ba léegi ñu ngi fi tey nga xëy nga ne ñoom moom ñu état moom moom te état juddu fekk ko fi. parking bi dafa am ci yéen kenn mënu kaa expliquer li moo li moo représenté mooy suñu dund ak suñu lépp. c'est au-delà de nous parking bi moo sut ñu juddu ñun ñëpp suñu patrimoine la nee nam la kiñ ko tuddee maam Tamsir Mamadou Ndiaye turam récemment lañ ko fa yobbu parce que lépp lu mu loon wax si jumaa ji la ko doon waxee ñu noo ñu yobbu ko foofu serment am dafa loon wax ne ba ñu nekkee benn ñun waa Ngor wërsëg bi moo ngi fii si croisement bi croisement bi moo la foogu ma doon joxoñ waaye ki laa wax loolu yëpp si dundaam nga am paix ñun parce que dëkk bi jàmm rek moo fi am ñaanuñu dara xiifuñu maruñu li ñuy laaj mooy les terres yi nga xam ne moo nekk si dëkk bi wilaay war a suul nañ ko bàyyi ak population bi souverain ñi nga xam ne ñoom ñoo la loolu lañ jotee ak gendarmerie waaw gis nañ événement yu métti yoo xamante ne xew na si jëmmi jamono Ngor fii nii événement yu métti métti métti parce que ñun ñii ñun ñuy population Ngor ñun ñuy fi dëkk ñun ñu ñun ñi ko dund rek ñun ñoo ko mën a mën a mën a témoigner te dem nañ ba gis ne président woote na woote na dignitaires yi dem ba solution am na à ce qu'il paraît dañ koy partager si digg bi beneen parti bi ñu defal ñu ci lycée beneen partie bi ñu def ci gendarmerie mais avant loolu noonu yëpp ba mor doom am man dama gisoon que ni waxtaan bi waroon na yàgg am waroon nañ toog bu yàgg waxtaan ba mor doom bañ am essence sa famille mooy loolu xale bi rek ay perte parce que ba léegi amul suite ba léegi amul suite ministère de l'intérieur génn na joxe communiqué am et tout mais d'après communiqué bi liñ communiqué xale bi li ko rey loolu yëpp leerul aussi donc population Ngor mu ngi demandé voilà affaire boobu noonu ñu leeral ko famem mën a xam nan lay def nan lay procédé loolu daal la population di Ngor di demandé. dëgg la donc euh, gannaaw bi fi xale bi euh, faatoo euh, ñu ne gars dañ ko door bal mu daal di ñàkk bakkanam autopsie génn ne ab hélice moo ko moo ko faat. mais am na apparemment askan wi ñoo xamante ne wuñ daal autopsie li mu wax. waaw mënuñu ko nangu parce que ñii ko mënoon a nangu parce que bu fekkee ne population boobu dañ nekk si bee bi bi accident bi di am euh, ba tey yu doon sauver ñii ñi presque ñu ngi si presque île de Ngor di sauver ñooñu dañ doon parce que ñii ñii ñu doon door ay bal ñuy daw ñoo doon fay pour dem île te île de Ngor ak place bi sax fait quatre cent quatre-vingt-neuf mètres matul cinq cent mètres. léegi ñoom ñu ngi fee avant ñu yegg gaal bi jëlee leen fi te xale bi ñu ngi ko dóoree bal si tefes gi tefes tefes moo la fii rek si sa si sa kaw waru tànka fa lañ ko dóoree bal fa lañ ko ramassé jël ko image yaa ngi fi hélice hélice du wañ du fer ñoom la te ñoom nee nañ ay métal de fer lañu fekk si xale bi kon sa veut ñun inventé wuñu lii mu doon te lii si gën a garaaw lii si gën a garaaw boo demee si ñeneen yi si si ñi xam ne dañu gaañu ay opération yu grave lañ suivre boo leen xoolee am na ñoo xam ne seen loxo genn wàll gi dafa dañ loolu lan moo koy def kenn xamul ban façon bal lañ yor te lii gën a kéemaane mooy ñi ngay xeexal yoruñu sax xeex xeer parce que géej amul xeer géej amul xeer ay saabal de suuf lañ yor ñoo ñu nga yor ay bal di leen ko dóor est-ce que tu trouves ban Sénégal lañ nekk c'est pas normal. non dafa dafa dafa dalul xel tey na xel bu baax sax parce que xale bi d'après plusieurs témoignages ñi ñi ñi fa nekkoon et tout gis nañu xale xale bi policiers yi ñoo ko tiré man je ne sais pas ndax la lañ ko tiré mais d'après les témoignages policiers yi ñoo ko tiré te ñoom si seen autopsie liñ génnee mooy xale bi benn hélice gaal moo ko rey te loolu demeewul noonu parce que ñi fekkee affaire yëpp te c'est de plusieurs témoignages na loolu lañ wax donc foofu daal bëgg nañ fa justice ak lu leer. dafa dañ ko war a def. dañ këriñ yi taal am na ñoo xam ne ba léegi mënuñoo tëdd seen kër parce que xet xet gi dafay nekk dafay resté am na am na suñu voisins yoo xam ne du ñu ay native de Ngor dañ ñëw jënd fi ay kër mais ba demee seen kër daxale tiit parce que duñ fi koorite dañ tëj seen kër dem julli ji koorite feneen waaw léegi xoolal tur yow il trouve kii nit ki am këram fii nekk fi résidus fii war a julli ji it euh, koorite mu dem ah ax waa këram si seen village si ginnaawam këram ñu dóor fa ay affaire kër gi tàkk ba jeex. mu ngi fii si dëkk bi mais loolu est-ce que yoon la dégâts bi dafa garaaw léegi nit kooku am naxar boobu dëkk boobu am naxar boobu nga rayal ka doom yàq ay këram nga leen di daxale jël sursam muy parking bi tool boobu ma laa wax noonu yaa ma dog ndax am na mu tuddoon tool boobu ñu ko tudde woon toolam àllarba ça veut dire sax mercredi tout tout le village fa lañ laa daje bayka lii fa meñña in dimbali si ñii nga xam ne dañ ko soxla nangu la tool boobu tuddoon toolam àllarba ñu dem a dem a dem a dem dem dem ba ñun ñëpp ñu maase si xel esprit màgg ñu ne fii kat toppoonu ñu tuddee ko suñu maam Tamsir Mamadou Ndiaye loolu moo andi turu maam Tamsir Mamadou Ndiaye foofu. gannaaw lu toll ci ayu bés ba Adja Diallo ñàkkee bakkanam askanu Ngor dese nañoo giif ba tey li ñuy sakku nag mooy ñu bàyyi ndaw yi ñu jàppoon ci yi jàmmarloo wante it ñu delloo leen juróom benn junni mètre carré yu suuf yi nga xamante ne moo waral bi la ba tax ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan.